L'année euh, année passée, bon, on l'avait, on l'avait fait, mais on n'a pas encore, on n'avait pas le, comment décentralisé dans les, dans les, dans les, autres quartiers là. Et cette année-ci, on a dit que pourquoi pas, on a essayé de, décentraliser ça, de faire ça dans les autres quartiers. Donc, euh, au début, c'était à Mermouz. C'était à Mermouz, on l'avait fait là-bas. L'année passée. cette année-ci en même temps aussi, oui. Mais année passée, bien. Pour le puis finalement, on a eu l'occasion de, de, faire ça à Wakam. Moi, et, et, vendredi passé, c'était assez bon et ça a été bien passé. On a programmé, donc chaque, chaque Ndogu, comment dire, chaque préparation, c'est chaque vendredi, dans les quatre vendredis. les léegi dañoo bëggoon nga tay nga tari ñu Yada. yadda. yadda. Ah, nga tari ñu ko. xool beneen suur rek. Ah, tabat yadda moom la ñu. y a pas de problème. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ما شاء الله ma sha Allah dafa mel ne ay oustaz la ñu am fii de ah ah sama caméra bu mel dëgg dafa mel ne ay oustaz la ñu am fii de waaw kon gars yi ni ngeen ko gisee tey ñu ngi taxaw fii nii tamit ci benn yaay Seyda dafa mel ci association bi la bokk de soxna si tur bi nan la Tako Ndiaye laa tudd Tako yaa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm bu baax

effectivement wa may coordonné yenen bureau yi di euh, vérifier li ñuy liggéey et tout. Ah. mais à part ça nak j'espère que tout va bien. tout va très bien. naka koor gi yaa ngi woor maa ngi woor bu baax. sûr que yaa ngi woor. c'est très sûr. <laughs> voilà légui yow dañu bëgg nga tale ñu tabal ya daa rek benn saar boo mën rek ta ben sar par hasard Fatiha sa boko ko nga tari. Hmm, tarew ma dara da nga ne woon tari amul. deug la. ah da nga ne woon tari amul. alors ah, nga wax ben sar ah. légui yow mën nga netali nettali sa benn anecdote. est-ce que am na lu bizarre def daal étant enfant ban bêtise nga mos a def. man ah. <laughs> loo mos a def loo xamante ne sa yaay dóor la si bëggee bëgg a dee. ko wax. bëri woon yow bi nga nekkee xale. non man dama change woon. <laughs> yow mii da nga change woon mosoo def benn bêtise benn kuréel yow mii nii nii mantane mantane. Ah <laughs> daa woon sàcc ok ya? mau nggak granat ya? waaw góor jamar. Wah fii nii nga xanaa wakam Kita. wakam est-ce que am na a am fa la ëppee sax nga man góor ñi rek laay leb leb la la fois passé gisaat nañ la tayaat ci ndogu bi ñu la lan say intervention pourquoi nga ñëw fii ci bi Ah, bon, avec cette période, je crois que, comme, comment dire, euh, c'est de bonnes actions qu'on fait. Quoi. Comme d'habitude, nous sommes une famille, on se retrouve tout le temps pour faire euh, ce, cet événement. Voilà, et là aujourd'hui, comme vous l'avez vu, nous sommes dans un da aussi, on soutient la cause avec les enfants et tout, donc ça fait toujours plaisir. Quoi. Donc, euh, voilà. Ça fait du bien. Yo, tu es quoi dans l'association Moi, je vais oublier. Je suis chargé de relations extérieures. Ah, non, même pas, même pas. Même pas. Même pas. <laughs> Même pas. Mais le nom, c'est euh, ça Marvin. Marvin. Hein. Hein. Ouais. Ouais, tranquille. Tranquille. ah ah non hein. eh, non anecdote ah, comme des comme <laughs> ah, anecdote quand j'étais enfant ah, ça dépend de sur quoi. waaw ah, moo ma tabassé de. waaw ah. langue oto. waaw waaw champion langue oto la woon de. mooy lan. ah quand la voiture vient tu sautes derrière ça t'amène ah ninja la woon ah, langue oto. saa sa voix mais kontaan ok ok frère ok ñu ngi nekkaat ak yéen ñi ak benn soxna benn yaa Seyda si association bi macha allah soxna si tur la. ça va alhamdulilah. Khadija ñu gisoon la tey nga nekk si associ association bi ADA bi lan moo waraloon say tànk fii. maay caatu association bi. caatu association bi yow mii. Eh, eh, eh. ah, ah baax na. <laughs> mun naa gën association bi c'est par le biais de Marvin moom moo nekkoon li ci waxtaan ak man c'est un truc boo xamante j'ai longtemps voulu le faire. et occasion la woon ci man ma def ko donc après je me suis dit pourquoi pas me lancer et depuis deux ans ben ñu commencé ba tey maa ngi si association bi bon yaa ngi yow lan nga ci association. man orga laa nekk. organisation bàyyi góorgóorlu bu baax a baax a baax sinon à part ça quoi. je suis étudiant. oui. c'est association ay cadre rek la ne ay wesh wesh tamit. Eh, kontaan nañ léegi ah. merci beaucoup gentil waaw comme gars comme vous le voyez ñu ngi ni taxaw tamit ak beneen membre ci association bi. gannaaw tur tur bi naka la Abdallah.

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين macha allah macha allah macha allah kontaan nañ ci yow ah. jaajëf grand merci beaucoup ah. waaw ñu jaajëf tur bi nan la. Marinette. Marinette Marinette la. Touré. avec Marinette lépp war a net de. normalement. ah moo tax it dafa mel ne mu ngi net de. ah gis nga de. waaw kay ñun laajoon la lan moo lan moo yow yaay yow ci lan nga ci association bi quoi. xëy hein, secrétaire général secrétaire général de mhm. l'association bi. Mhm. yaay géré yenn affaire yi quoi. waaw gis nga. mais yaa ngi si jàmm bu baax a baax. maa ngi nii rek a wax si association bi loolu ci mën a expliquer. Oh, association bi daaw le la judd. Mhm, daaw la ñu commencé def euh, suñu première édition Donc, daaw donc on a fait ça à Sacré-Cœur et ça s'est bien passé on avait fait chaque chaque euh, vendredi nous distribuions 500 donc nous, nous ñëwaat encore ren.

ba mu des Fatiha parce que na ñi ko mën bari kul wallaahu ahad moo gën a yomb. <laughs> bu ko wax. tariwu ma saar. saar moom dama ko taril loo. waaw waxal benn rek. yii tariwu ma saar ah soxna yaa Seyda tari nañ ah, ay soxna yaa Seyda lañu nag. waaw

bon je je réponds au nom d'Abdul Kader Je suis donne chargé des relations extérieures hmm, Dada en quelque sorte association Dream Alive euh, association bi deux ans la donc elle est assez précoce mais la précocité précocité des problèmes des ñu pour réaliser son activité parce que je pense que nous avons c'est la deuxième fois c'est la troisième fois autant pour moi nous avons L'année dernière, on a pu faire 4 ndogu pour les 4 vendredis du mois et cette année-ci tamit moo objectif euh, et que Yalla y a le parce que c'est pas la première fois quoi. c'est pas la première fois c'est la deuxième fois c'est la deuxième fois. en résumé en résumé bon nous allons dire que l'association est là et qu'elle est caritative donc bonne volonté Bon, je pense que tu peux passer par Ada. mën na mën na teg loxo ci lu nekk parce que ñu ngi ci social bi ci côté SOS yi crèche yi euh, pouponnière yi fépp foo xam ne la besoin sa sa sa sa ressenti ñu ngi fay ñu ngi fay ñu ngi fay dem jàppale nit ñi dolli leen dolli leen ci li nga xam ne loolu lañ am daal ci suñ poos ak suñu xam-xam tamit. kon ñu ngi leen di ñaanal bon ngeen gën a am yokkute fi ngeen toll ren déwén ngeen gën fa yokk quoi waaw lan nga ñuy wax nag dañoo bëgg defal benn affaire maanaam yow est-ce que dañu bëgg nga tariyal ñu fatiha bu neex. Euh. ah defal dégg naa yaa oustaz oustaz non déedéet ñun ñun ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp benn lañ def ñaan rek bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتم لما حقق والخاتم لما سبق ناصر الناصر حق بالحق والهادي الى صراط المستقيم ولا اله حق قدره حق قدره مقدار عظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون Assalamualaikum alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin oustaz yaa bi nan la man Aïssatou Ndiaye Aïssatou Ndiaye yow Sayda ya. Sayda Sayda Sayda ay ma ay Sayda ngeen de di sellal de ay version sere Lo def nii mën fa kii def lan romb lobbu lus kanaa taala wala yoon taala romb la di non dooñu sax mais ci sinon yéen a ngi si association bi quoi. waaw doon joxe ndogu quoi. Mhm. ah voilà kontaan ah. Hmm. ay ku ma ci mën a mën nga ma nettali sa benn temps booy loolu ah, ah, def benn bêtise temps booy de. waxal ku sage la dama def bêtise nag. a def sa yaay mos la dóor. déedéet sa saya musulu dóor yow nga judd ba toll nga saya musulu sama yaay musu saya dóor sa yaay de yow xanaa yow yaay tubaab nga ah sama yaay yaay de musu maa dóor tubaab yaay tubaab du dóor déedéet sama yaay musu maa dóor def ma ay bêtise ba sama yaay dem sa papa waaw waaw musu maa defoon ba sa papa dóor la man def ko sama rappel sax saya ko defoon kon da ngay réfléchir ni ana tan ñu ñëw si kii yow la nga musa def yow ba sa yaay dóor dara yow mi ku terrible nga may ndóor man dama yaru sa kanam bii. ku la ko xam ne ku terrible nga may nduróol yow mii nii. waxal rek dama yaru ma non non góobu la day ruube la. bilaay def ma dara c'est sérieux. yéen ñi waa. gën yéen doole ma ci nettali kenn du ma fi nettali sa temps. mais amuñu anecdote waa léegi amuñu leen temps booy léegi yéen lan léegi léegi lan ngeen ñu mën a waxal ñun léegi xam la ma bëggoon. dafa ñu xam nga Zosie Saza way ñu Zosie Saza. lu tax ma lay woy Zosie Saza yow tamit man tamit foofu ma man xam nga temps booy jànguma loolu yëpp ay je suis sage ay xaw ma loolu

waaw ça va ni santé yow nag. waaw man maa ngi si jàmm bu baax. yaa ngi yaa ngi dégg jàmm. maa ngi dégg jàmm maa ngi yu quoi. ah kon baax na kon baax na foofu. mais sinon tranquille quoi. voilà kon tay comme ni ngeen ko gisee la fois passée ñëwoon nañu tey ñëwaat nañu tay vendredi ñu ngi fii tey Mermoz ñu waxoon la nga laaj quelque chose yoo nga xamante intervention si seen association bi. Le waraloon tay ñëw bi fii Mermoz ngeen choisir benn daara fii. bon euh, déjà li ñu njëkk a wax mooy ñu ngi si suñu deuxième année si association bi je pense que yow sax biñ koy taxawal yaa ngi koy fekkee ñu ngi si suñu deuxième année et on va dire que lii mooy suñu deuxième édition ndogu pour tous campagne bi ndogu pour tous lañ ko tuddee donc euh, daaw biñ koy commencé taxawal nañ ko biñ koy taxawal daanaka euh, groupe xarit la ñu woon et bi ñuy nekk groupe xarit nag campagne commencé woon nañ ak benn campagne boo xamante ne nekk ah nañ nekk visé nañ si ay daara donc c'est une distribution d'art alimentaires pour tous donc tayji nous suñu commencé ba pour tous ren ni ba yalla may ñu nous ñu dem am ba ñu am ëpp donc nañ euh, voilà pourquoi pas en même temps voilà quoi. bon bah, Non, <laughs> non idée Il on va dire que c'est une idée collective bon certes on m'a mis en avant en tant que président mais on va dire que c'est une idée collective comme nous l'avons au début on a fait des actions et ce sont des actions d'un groupe d'amis qui aujourd'hui on a essayé de formaliser la chose et on s'est regroupé pour dire aujourd'hui que nous sommes ADA. ça ça fait du bien et que condamnons-nous yow man dama am question mooy taye mooy taye na taye mooy foofa toj déggal loolu nee na taye mooy eh nee na taye mooy nee na taye mooy président kaay président kaay nga di taye lan nga ni taay lan taay nee na taay mooy lan président nga ni taay mooy président nga ni taay mooy lan. vive coupé coupé. garaaw nga ni taay mooy. xool naa man taay mooy laa dégg. non wala nga ni taxaay mooy léegi ñoom expliqué nañ la maanaam xoolal xoolal xoolal xoolal démonstration boo toogee nii ah nga nii di def wax nii def nii looy wax xanaa léegi leer wuyul kii mafia bi si ginnaaw pourtant ñu lay teg ci code mafia bi si ginnaaw boo ko waxee instant yi dañuy naan ñoom ñoo ma ko wax quoi te loolu laa